sëriñ Touba mooy kan bu ñu bëggee xam sëriñ Touba mooy kan du ci mbedd mi lañ koy xamee du ci wax yi ci mbedd mi ca lañ koy xamee déedéet moom jëf na wax na bind na dañuy dem ci lim bind rek ñu gëstu foofu moom ana lan la waxal boppam loolu mooy li gën wér wax yi ci mbedd mi ndax bari na ay wax yoo xam ne léeg-léeg da koy dégg waaye ay waxi daanukat la rek sëriñ bi li mu jàngale lépp dara génn ci lislaam dara génn ci alquranul karim ak sunna rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam bi mu ñuy présenté boppam du ñu wax moom mooy kan dane moom li mu doon mooy abdullahi wa xadim rasulihi jaamu ko yàlla buy liggéeyal rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam li nga xam ne mooy daraja sa daraja bi nga xam ne moom ngay tiitaroo moom ngay bàkkoo moom biñ ko laajal lan mooy sa daraja dana sama daraja mooy jaamu yàlla képp te loolu du ko bind dafa wax ne darajati كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله من سيرن توبا لي سما درجه موي نيك بما نيك دي جامو يالا اك دي ليغيل جامو يالا بيغا خامني موي محمد ابن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم بندم جيب تي جامو يالا اك دي ليغيل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تي لاكو جيخال تي جامو يالا غوغي تي القران اك لاكو تك tegu ko ci rek ci xalaatu boppam nii rek wala nim ko gisee day sëriñ Tuubaa indiwul lu bees lu wuuteeg alxuraan ak lu baa mu wuuteeg li salaa salaam jàngale dafa ne diinun siwaa islaamihi laa yuhmadu andal ilaahi wa bihi nujaddidu diine judul diine lislaam sante su ko gërëmee su ko te diine jooju di diine lislaam man sëriñ moom laa yeesal موحدنا للمصطفى نويتما يجدد سنته الغرة وإني أحمد من دائما أحمد بن خمني سما ينم ويسال سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لبم متنكون كتاب القرآن والسنة وحنا نبني تاعتي باتباع بالذكر والسنة والإجماع من سرين تبا سمك توب يالا سمك جام يالا من كتاب القرآن والسنة أجلين خمني تلا برم خم خمي دبو képp ko topp itam loolu la digal ndax dafa wax ne duumi ala sunnati wal ijmaa baada kitaabillahi bijtimaa yi maa ngi leen dénk da ngeen sax ci alquran ak sunna ak li nga xam ne moom la borom xam-xam yi dëppoo kon kooku moom mooy Serigne Touba ni mu nekkoon Abdullahi jeex takk ci jaamu borom subhanahu wa taala loolu leer nañ nañ jaamu na borom di ko jaamu di ko jaamu ba jaamu ko ci kawum ndox. te keroog moom sëriñ Tuubaa de moo waxal boppam loolu sax moom sëriñ bi jàppee ko karaama sëriñ bi julli gi mu julli ci ndox mi moom jàppee ko karaama moom moom ndax moom moo nettali boppam waxal boppam ne keroog moom mu dafa wax ne li tax mu sànni dërëm ngir julli ci géej gi moom moom moo nettali li boppam xam nga moom li mu waxal boppam dara gënu ko wér moo waxal boppam ne bi muy sànni deram di ci ci géej gi ngir julli moom nee na xamutoon ndax day lab ab du lab moom dana gannaaw waxtu wu julli jot na rek moom du ko faat nee na moom bakkanam bi faatu moo gën muy faatu waxtu wu julli lii la waral mu sànni deram gi fas yéene julli na julli baa mu faatu rek fii fii la Sëriñ Tuubaa nekk jax takk ci jaawu borom subhanahu wa taala nekk googu nekk googu mu nekkoon jaamu yàlla dem na sax ba di ko seedaloo géejug Maayomba ga foofee ko tubaab yi yóbbuwoon ca Maayomba ca tefesu géej nga xam tubaab bi dañ koo teg ci tefesu géejug Maayomba tumuraankal ko nga xam ne moom jëmmam ji képp moo fa ne dangay xool ba fa sa da ngay xool sa ndeyjoor ba fa sa bët yem xool sa càmmoñ ba fa sa bët yem penku sow kanam ak ginnaaw jëmmi sëriñ tubaab bi képp ngay gis mu nekk ca tefes gi tumuraanke fi wéet fa moom rek waaye di di wax ak géejug mayom bi gi amuloon kenn kum don waxal ci yàlla waye ma ngay wëlbatiku jàkkaalu géejug maa yomb gi di wax ak mom nan ko liyashhad bi kawni abda man yaghfiru zanba wa kawni xadimal mustafa bahra ma yumba yo géejug mayom bi nang ma seral ne man ahmadu bamma lima don moy mooy jaam bu yàlla buy liggéeyal rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ولاشهد بأني لا أداهن مشركا خليلا حبيبا للذي الكرم الجنبا yow ma géejug ma yomb ki nag ma sédal né man ahmadu bamba duma andu mukk ak kuy bokkaale yalla te xarit bi yalla lay doon bi yalla itam lay doon way duma andu mukk ak kuy bokk yalla bokkaale yalla sok né ko aya bahru wahid la tusallis fa rabbuna taala ani taslis akrim bihi rabba aya bahru e yow jijj wahid kennalal yalla witalal yalla la tusallis bul bokku mukk ci ñi wax né yalla ñett la ndax fa rabbuna taala ani taslis akrim bihi rabba mu ko ndax yàlla kawe na kawe kawe go xam ne tedd na tedd nga go xam ne day jomb ñu naan ñett la kon yow géej bul bokku mu ci ñettal yàlla nako ko fukkum muzbidam min makhafatin min allahi washhad annani abduhu sabba yow géej del baj baji te ngay fuur ngir ragal yàlla boo yëngal say douce boo yëngal say vague bu mu nekk loo xam ne da nga koy yëngal noonu kese ci dulu dara déedéet boo koy yëngal yëngal ko min maxaafatin ngir ragal yàlla washhad te nga seede ne am na ni naka man de abduhu sabba man de jaamu ko yàlla laa ba ko sopp moom yàlla xam nga ne moos wax ju kawee nii wax ju yéeme nii ko dem ba jàkkaalu géej di ko ko wax xam nga ne moos kooko sore na lool ak bokkaale yàlla kon li xam ne dafay xew ci jamono jii aw nit yoo xam ne dañuy tuddoo sëriñ tubaa nee nañ ci Serigne Touba lañ bokk nee nañ mu ñoom moom la ñu gëm tey wax ay wax yoo ku ko digg te xam taw xam te xam tawhid xam ne lii waxi bokkaale yàlla la loolu ko xam-xam ne Serigne Touba sore na ak loola sot na ca wicc jotewut ak loola dara ba dara boo lay jeex sëriñ Touba ci dëgg ci ak njub ci saraatal mustaqim rek ci la nekkoon ci jamonoom bi dund kenn xalaatutoon kenn sañutoon di def lenn caaxaan ci kanamam kenn sañu ko woon léegi rek la nit di ko tuddoo sañ def lu ne waaye ci jamonoom kenn sañu ko fu ñekkoon caaxaan la am na ku mës a ñëw di wax ak Serigne Touba toog comme nit ñi niñ baaxoo waxee rek ne ko Mbàkke euh, gannaaw bu yàlla ak yonent bi sëriñ bi ne ko ndigal waa ji teg sëriñ bi daal ni bër jug daal di dox ab diir ba toll nee soog ne ko yàlla ak yunt bu ñu wéyee kenn dootuma fekk man man xaadim rasul ndax damay wéy ànd ak ñoom loolu mooy gis nga ni mu nekkee caaxaan loolu mooy yàlla ak yunt bi fu nekkul nekkuma fa lu ñu wax laa wax lu ñu gërëm moom laa gërëm te bind na ko wax na ne wama abaahu yaa baahu lu rasulullah salaa sallam bañ man ahmadu mooy li ma bañ sallallahu taala alayhi wa sallam kon ni mu nekkoon jaamu yàlla bu jeex takk ci borooma leer na naññ waaye itam ni mu ku jeex takk ci rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam leer na naññ wax na ne yaminu rabbiya inna rabbiya ahab lii min siwaahu wan nabi baadul mu ne giñ naa ci yàlla ni yàlla sama borom moom laa gën a bëgg daane yàlla giñ naa ne ki gën a bëgg mooy rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam dem ba giñ ne aqsamtu billahi giñ naa ne de man xaritub rasulillahi la salaa salaam te itam soppeem laa dem na sax ba bind na billahi allazi la ilaha illa huwa al alimul hakim loolu ba ngeen demee ca muqaddimaat muqaddimatul xidma da ngeen ko fa fekk ca tarjumaan ca mu ne billahi allazi la ilaha illa huwa al alimul hakim xayaati wa mamaati wa xarakaati وسكناتي مسيرنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من جينا تي الله من خن موي اجي خم لب تي اجي خرين جينا تي الله مو من حياتي سما دوند وسكناتي اك سما دال وحر حياتي دوند وسكناتي وحركاتي سما يوم وسكنات سكناتي سما دال ومماتي سما فاتو لول لب يخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم léppam jox na ko boroomam ak rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam xam na bu baax te xàmmee na taw it gu mat sëkk digganteem ak boroomam nekk abdullahi jaamu yàlla gu mat sëkk jaamu boroom di ko wiital du ko bokkale ak kenn ba leen te nangul ku bokkale yàlla ak leen baa nga koy dendal ak leen